What? ثم ñaan suñu borom boole ñu jéggal boole ñu itam defal tawféex ju kawe di ndokkeel ñëpp ci bis bu tedd bi nga xam ne moom lañ jógee muy màggalu Tuuba ñaan suñu borom mbooleem luñ ci jëf mbooleem luñ ci def suñu borom ful ko te defal ñu ko ay xéewal àdduna ak alaaxira di ñaan ñu ñëpp ñu fekk ko déwén ci barkeb Sëñ Tuuba Euh, di nuyu sëñ Basiiru bu baax xam naa kàddu gi kàddu gu bett la te gàtt gàtt lay doon xam na ndax dañoo bokk ci ñi war a taxawal mbir mi di ko saytu waaye moom day def fu ñu gisee ci barab bi rek day jàpp ne suñ kàddu war na fee yëkkandiku waaye bu fekkente woon ne am nañ fi ngànt dañ koy joxee ndax yu baree bare tax na euh, waaye nag daa bokk ci ñi jox ndigal moom moo tax mu ne sutu ñàkk a jëfe ndigal li waaye xam naa damay yëkkati kàddu gu gàtt rek goo xam ne dama koy jëmee koon ginnaaw ay mbokk ñoo fi dese ñu jëmee ko ko ci ak mbokk rek ñoo xam ne ak mbokk moom mel na ni lii Sëñ Bass Sëñ Bass yàgg na koo def te ñi ko jot a fekkee ci ay at yu ginnaaw yaakaar naa gis nañ ne yokk na lool kon am nañ yaakaar lool ne lu suñ boroom gërëm la bu fekkente wan na du lu yàlla gërëm mën naa am xëy na jëm kanam gi du ci am te kenn ku nekk xam na ci ñun ne euh, ba mu koy def dañ ko daan fekke booba daana daana gën a néew ay nit ci lii ay bu ñu demee ba mu koy génne ci biti kon day mel ne kon lu am solo la ak bokk nag dafa bokk ci dogale suñ borom yi nga xam ne day mel ne yàlla suñu borom ci boppam moo ko dogal mooy seet nam ko neexee mu koy tànnee noona amul kenn ci ñun koo xam ne danga naan barab sàngam laa bëggoon a génne wala barab sàngam laa bëggoon bokk waaye su borom mooy tànn bu defee bi muy tànn itam kenn la tànn génn ca ñëpp yaa ayyuhan naasu ittaqu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin waahida kon day mel ne min nafsin waahida boobu day mel ne ci aadama la ko jële xawaa sax ci aadama la ko jële ñun ñëpp ay doomi aadama lañ mu mel ne itam coobaree suñ borom la dogal bu yàlla la waaye coobaree suñu boroom la ni mu nekk coobaree suñ borom mooy day mel ne suñ boroom tëliwul sàkk doomu aadama bañ ko wutal cëslaay ndax booy xool malaayika yi yaakaar naa boo moytuwul ñu ëpp nit ñi te malaayika yi kenn amu ci ndey kenn amu ci bàyyi kon tëliwul suñ tëli du ak tëli ci suñ borom mu mënoon a sàkk doomu aadama te wutalu ko ko waaye wala xadd karam naa bani aadama jooju mu waxoon ne lu mu bind doomu aadamaa ko ci gënal fokk mu ko aw yoon woo xam ne ci lay mën a jaar ba nga loola mën a feeñ kon day mel ne suñ boroom kon ba ne bu ko neexoon mën a bañ a bañ a sàkk euh, ndey ak baay te du tee doomu aadama am beneen bi ci des it mooy euh, ñu xam ne ginnaaw bu mu nekkee dogalu bu suñu borom mu nopp nekk coobareem ndigal li ñu suñ borom jox ngir ñu sàmm ko loolu it ab ciraat la bu doomu aadama am ndax bàyyi ma yi am nañ li li nit ñi am bàyyi ma am na ndey am na baay waaye taxul suñ borom gàll ko mu war a sàmm ak mbokk suñ boroom doomu aadama la sàmm la la dénk mbokk gi su ko defee mel ne aw askan itam askan woowu bokk diw diw diwa ko jur diw diwa ko jur diw diwa diwa ko jur ba mu àgg ci aadama loolu lu am solo la itam ndax bu amutoon solo ku mel ne Sayyiduna Arisa euh, ku ne xam na ne n bi sallallahu alayhi wa ko adopté woon mu bokk ci ak njabootam waaye keroog bañ koy jël si la ko su yonent bi sallallahu wax ne ko euh, say mbokk dañ lay jël si bu fekkee man nga tànn ñu yóbbu la ñu ñu bàyyi la fi bu fekkee ñoom nga tànn ñu yóbbaale la jikko yim nàmb ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam tax mu ne du tànn yonent bi ginnaaw kenn moo tax ay mbokkam bàyyi ko fa waaye téewul la muy nekk nekk nekk soppe bi yonent bi sallallahu alayhi yonent bi adapté ko téewul suñ boroom ne ko kenn ku nekk na dem caw askanam udduhuhum li abaihim mu aqsot hindallah fa in lam taxalamu abaakum fa ixwaanukum fi diine wa mawalikum kon askan woowu lu ama am solo la ci doomu aadama dajale itam ku ne xam ne ne ndigal la ci suñ borom boole ñu ci ak buum goo xam ne dañ koo war di fexe ba buum gi bu mu dagg bu mu funux bu mu def nen ndax ba mu ne fa taqullaha wa aslihu saati baynakum la ca teg kon day mel ne ak mbokk lu am solo la ci nit ki di ko bàyyi xel di ko dox yonente bi sallallahu alayhi wa wa sahbihi wa sallama mas naa wax saxaaba yi ne leen duma leen wax loo xam ne moo gën julli moo gën woor moo gën natt asaka ñu ne ko lu mu doon ne jokk ak bokk kon day mel ne jokk ak bokk moo gën fanaanee julli maanaam ci misaal ki nekk ci jàkkaam di fanaanee julli ba bët set te am ñaar ñoo xam ne déggoo ak déggoo di ko moo leen jàpp ka jóg dem di dox loola moo gën foofu ki nga xam ne dafa naa ne julli kon loolu ñu bàyyiwaal ko xel ci jataay yi ñoo xam ne jataay bii jataay la boo xam ne jataay jokk ak bokk la Sëñ Tuubaa mi nga xam ne amuñu lu dul moom nee woon na nit ki mën naa ëpp mën naa gën ay bokkam waaye mënta am leen gën nee woon it nit ki mën naa ëppale ay bokkam waaye mënta ëpp ay bokkam nee na nit ki it nee na mën naa jiitu ay bokkam waaye bu taxawul ba ànd ak ñoom aw doxinam du rafet kon loolu bind la boo xam ne rek yaakaar naa doy na sëkk ñu mën koo ginnaaw nag jabootu yëpp njabootu Sëñ Tuubaa lañ te Sëñ Tuubaa moom njariñul kese la woon te dafa waxoon ne aati nabiya aati rasulullahi maalam yëkku ni wala yëkkun abadan li mumki ni kon am na lu mu dajale lu moom ila yaqaad allahu ni wala yëkkun abadan li mumki ni muy njariñul kese te am faneen fu mu wax ne ijxal xayaati nafa ahli samani maam suñ borom defal ko ak dundam mu nekk njariñul mboolem ñi nga xam ne ñoom la jamonoonteel te jàpp naa ne ginnaaw suñ Tuubaa keneen ku kuy dikkaat kuy jamononte kuy jamononte nit ñi amul ku dul Sëñ kon day mel ne kon njariñul Sëñ Tuubaa njariñul adduna lépp ci loxoy Sëñ Tuubaa la nekk am na feneen fu mu waxoon ne xabli samaani bi sel baqaay loolu waxoon na ko si imsut ne ko nu ngeen koy firee mu wax ko mu ne ko desiti li baax sans borom nee na ci man la koy feeñale loolu mooy firi xabli samaani bi sel baqaay tagal ko ci ne ko ab xayta saati mahal xataay nu ngeen koy firee mu wax xataay mooy sama jëmm ji dafay des dafay des ba ëllëg yomal xew akbar may def di dindi loolu ab xayta saati mahal xataay di di firi loolu si am sut jaxaat la ko la ko woon kon day mel ne mboolem ñi fi daje ñëpp ak mbokk moo leen fi daje mbokk euh, deret ak mbokk xarit mbokk muy mbokk mbokk goo xam ne mbokk pas-pas la ndax ñun ñëpp suñ tubaa moo ñu moo ñu fi dajale ndax ba ko suñ bas di njëkk def di ko tàmbali booba ku xam ne am na fu mu tàmbalee woon waaye dem na ba àgg ci ñun taalibe yi sax ñu jug ci biir ak soppe yi loolu nag day mel lu yàlla lu yàlla gërëm la ñu ngi ñaan ci barkeb Sëñ Tuubaa suñu borom gën ñoo def suñu xol ñu nekk ay mu'min ay muslim te bañ a nekk ay muslim kese kese kese kese ndax qaalatil ahrabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu naa suñ borom defal ñuy tawfiq itam la suñ borom wax ci ab jullit ñu mel noona na ko suñ Tuubaa waxe wa ahbibil mu'mina lil imaani wala tubxidil kaafira kaafira lil kufraani walaw ata ilayka bi jinaaya saaka wasaa bi maa si kifaaya ñu loolu lépp ñu am jikko yooyu te jikko woo ko ci barkeb Sëriñ Tuubaa te képp ku taw ci jotaay bi suñu borom facc ayaaw saaxiru nu bàyyi nan wasalaamaaleykum wa rahmatullah kàddu ma xaw a bett moo tax ma tënk ko noonu wasalaamaaleykum maa kaana muhammadun aba ahadin min rijaalikum walakin rasulallahi wa xaatiman nabiina wa kaana allahu bi kulli shay'in alima barkeb Cheikh Ibrahima Fall mbokk yi asalaamaaleykum ginnaaw a ñu sant yàlla bi alayhi salaatu wasalaam di sant Seex Ahmadu di ñaanal sëñ Muntaxa mu yàgg fi ngi nuyu ñëpp di leen ziar di leen ñaanal jàmm waaye di ziar baax Seex Mahamadul Basiir ci bis bi waaye di njabootu Serigne Touba gi ak njabootu Maam Serigne Fall gi ak mboolem seex yi Serigne Touba fi seen i nekk ñëpp ñu ngi leen nuyu leen ziar sëñ am satu jaxati fi nga bàyyee am na solo muy ak mbokk ak mbokk dem ba nit ñi dañ ko xaw sàggane te mu sëñ Tuubaa fonkoon ko lool ñi mu bokkal maam maaram sëñ Tuubaa ku leen fonkoon la ndax moom fonk diwul doomu aadama ñëpp la fonk ndax mu saa ko waxoon na ko ni du dóor ndaw du merloo mag mënul gan tërëy dëkkam mooy du sàmm alaar lay firi bu defaroon suñ Daaru Asan Njaay bàyyi maam Cerno ay mbokkam dañ koy xas wala mu defar Seex Isaa Jeen bàyyi maam seexanta waaye sëñ Tuubaa fexe na ma ku bokk ci moom jariñu ba ku ci bokkut ba léeg-léeg tam nga dégg ñu naan sëñ Tuubaa moom lu am da koy tudde yonent bi sëñ Tuubaa dëgg la rasulaay rek la bëgg nag lu mu am tudde na la ko tudde muy soxna Fat Ja magi maam saxam la ko tudde muy soxna Fati Anta tudde nday maam Cerno doom ndax ak cofeel ci moom soxna Mariama Kunta rek sëñ Fallu mu tudde ko jigéenum Seex Sidi Buye Kunta ba sëñ Abdou Xaadir mu tudde ko ma Abdou Xaadir rek sëñ Boonu Sëli kon sëñ Tuubaa ku fonkoon ay mbokkam la te nag daa mi mbokk boo la ko nit di waxtaanal defal la ko robot doo ci jari doo ci jariñu mukk ba dina tukki parce que bu nekkee robot rek dootu garawati kon nekk natt yi yëgu koon kon mën naa toog bañ a tukki bu doonee yàlla tam du garaw day mel ni kon yàlla tubaab yi dañu ko jëran yóbbu géej teg koy nattu yàlla doxewut noonu mais sëñ tubaab da koy def nit gi ko yàlla def mu doog a mën nit ñi mu bokkalan jamono nga xam ni amatu nawle ci adduna bi mu fi ñëwee ba pare la ko a jariñu ci li ko yàlla defal li ko sëñ Tuubaa fi la indaale mbaax gi